mais mais c'est-à-dire seen seen bi fi mu amee euh, dafa nekk un moment critique pour Ousmane Sonko c'est-à-dire euh, jour délibération de son procès. il faut bu fekkee ne yéen àndu nawle bi ngeen di wax dëgg la ci yéen ngeen waroon a solidaire ce jour-là Barthélemy ouvre le feu sur Ousmane Sonko même si c'est Ousmane Sonko euh, qui a qui a qui a qui la l'avant-veille mais. Barthélemy dafa ouvrir le feu après voilà les les choses s'enchaînent le gars il est dans une posture difficile mm -hmm. il se bat pour sa liberté il se bat pour son éligibilité et c'est principaux partenaires de taxawu euh, ñoom dafa mel ni dañoo taxawee na leen moo tax boo leen di wax soutien nit ñi duñ ko duñ ko duñ gëm bu baax et peut-être que c'est ce qui amène certains analystes à penser que aujourd'hui yéen euh, da di jàppale ñu éliminer candidature parce que Ousmane Sonko bu ñu ko éliminer aussi voilà il vous le le euh, champ libre. il nous laisse pas le champ libre. mais mun si, amul benn élection qui est gagnée d'avance. c'est déjà à, à ah, au moins paradoxal mu leen force tekki wu leen dara kii moo fi nekk ainsi de suite et que yéen bu leen bàyyee vous avez le champ libre je pense que c'est assez assez contradictoire mais même na Yewwi c'est c'est ce sont deux formations importantes oui c'est Pastef et Taxawu Dakar et le PUR et, et Pastef euh, Taxawu Dakar et troisième formation importante le PUR, mhm. mais Euh, Pastef ak Taxawu Dakar ñoo ëpp doole euh, waa waa waa waa PUR et ça c'est électoralement euh, vérifié donc tey bu ñu effacer le le le Pastef euh, Taxawu Dakar pour en en en profiter. oh je pense que loolu ñu jàngul ñu jàngul sociologie électorale bi nag actuellement ou euh, profil militant yi ñu am léegi ñu xalaatee noonu il n'est pas dit que si Ousmane Sonko ne participe pas mécaniquement. les les militants du Pastef vont voter pour un autre leader man man man góoma loolu mais même na li mu la mën a. non waa moom bu bu ñu écarté Ousmane Sonko du ñu woteel keneen. donc ça veut pas dire. Ah, qu'on a mais y a des gens qui sont contre le régime de Macky mm-hmm. qui ont une aspiration au changement. Euh, voilà qui pourraient se rabattre sur un sur un Khalifa Sall te it euh, nañu waxante dëgg teewaayu Ousmane Sonko ci champ politique bi arrangé wul Macky Sall Macky son son son pire cauchemar. c'est d'être remplacé par Ousmane Sonko te teewaayu Ousmane Sonko tamit arrangé wul beaucoup d'opposants parce qu'il est jeune s'il arrivait à prendre le pouvoir di ngeen xaar dix ans donc donc tout le monde a intérêt à à effacer le gars bi euh, entre deux tours yi débat bi amoon bi parti socialiste ah. ñi naan euh, bu leen jàppale Macky parce que xale la ñii jàppale ñi naan jàppale Abdoulaye mu eggale deux ans comme ça ñëwaat élection mais toujours est que à l'époque Khalifa Sall fait partie ñi taxawoon ne gor sa wax ja on avait dit dañuy jàppale le candidat le mieux placé ñu jàppale Macky on a vu ce qui lui en a coûté mais mun a bokkul ci suñu genre wala sunu habitude politique nekk di comploter contre qui que du ñun du xalifa du Barthélemy je connais bien c'est la réelle politique c'est pas c'est pas complot pas comme ça loolu réelle politique la c'est-à-dire Ousmane ko dafa am lu mu réere mbir mhm. que politique dafa am réalité mhm. c'est-à-dire aujourd'hui je ne pense pas de. Euh, ah. Maïmouna euh, ah. ça fait ça fait quelques années que je fréquente. c'est la réelle politique Ousmane Sonko fait de la réelle politique. c'est quelqu'un qui sait très bien défendre ses il sait très bien comment parler à ses il sait très bien comment les haranguer. il le dit lui la dernière fois faut pas croire que les gens pensent que dafa naïf Ousmane Sonko naïful mën na politique am na xam-xam bi am na caay-caay bi acteur politique sinon du egg fi mu egg je pense que ku xalaat leneen da nga koy xeeb la vérité c'est quoi. c'est que tey je prends le cas de de Barthélemy en premier may mun a Barthélemy yàgg na wax ni il n'est pas candidat à présidentielle man bokk naa si ñu toog këram ñu toog soxna ma posé ko question frontalement ne ko Barthélemy dis-moi les yeux dans les yeux est-ce que Barthélemy tu es candidat à l'élection présidentielle administrativement mu expliquer ma pourquoi il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle et li mu waxoon leer na il a dit que moom bu nekkul candidat Khalifa Sall mooy candidat am bu Khalifa Sall bokkul Ousmane Sonko et d' ailleurs yéen ñëpp yaa ngeen dégg ay proche Barthélemy ñu mel ne ay imam Ndiaye yooyu ñu taxaw fii di wax ni que même si Khalifa est candidat Ousmane Sonko mooy seen candidat boobu Ousmane Sonko amagul problème yi moi je pense que Barthélemy a toujours été sincère dans sa relation avec Ousmane Sonko je pense que il s'est passé quelque chose entre eux lu nga xamante ne qu'il a eu du mal à digérer. parce que le fait que mu def démarche avec Macky joxe gage de crédibilité wax Macky mu ngi wax nii parce que Macky nga mën ni ko man duma la fekk pale duma la fekk sa kër Macky Sall am jël si moom dem fekk la fi ngeen bëgg ngeen daje. mais Macky Sall daf ci am da justement ça veut dire que il a il est Macky Sall est prêt voilà yow mu ñëw def loolu waxtaan ci ak yow soo génnee publiquement nga ni benn leader yeewu askan bi wax na ma waxoo kan la. ñu commencé di saaga di attaquer Khalifa deuxièmement dans le landerneau politique ça commence à tourner c'est que autour de Barthélemy mais Barthélemy sa première achat quoi ça veut dire que kii li ma seex ak moom ak li ma jaral ak li ñu def ci combat bi parce que y une face visible y a une face qui n'est pas visible bu fekkee moom mën taxaw ni tey jël position bi mais demain qu'est-ce que ça va être et Barthélemy pour moi a été meurtri parce que je connais très bien Barthélemy Maimouna nit ñi dañuy foog ne Barthélemy dafa tàng wala dafay meretu Barthélemy c'est vrai que tàng na mais Barthélemy c'est aussi l'homme le plus sentimental et li ma sentir si moom si crise bi c'est une colère froide Barthélemy a été meurtri par une situation et il est sorti il a communiqué maintenant j'entends ce que les gens disent que am na ñu bëri nu ma ne li mu wax dëgg la mais du woon bés boobu responsable de sa communication il a jugé que c'était le jour où il fallait le faire et il a communiqué et d'ailleurs pour vous dire Khalifa Sall fait partie de ceux qui n'encouragent pas les gens à communiquer à outrance ou à régler ces problèmes au niveau des médias Khalifa Sall a fait l'option de la stabilité de Yewwi Askan mais Barthélemy balaa muy communiquer tàggu na Khalifa Sall je pense que amul dara lu Barthélemy di def lu nga xamante ne moom ak Khalifa Sall duñ ci waxtaan Sall dafa am benn fonctionnement bu mu am bante ne je l'ai perçu chez lui et pour avoir plusieurs fois échangé ak lui dama ko comprendre Khalifa Sall ni la ko def dafa lay bàyyi ak say responsabilité Khalifa Sall boo ko laajee dara sax du la jox une réponse fermée oui ou non il te donne toujours la possibilité d'agir en fonction de tes responsabilités et xool leen ko si cas wu cas wu investiture Dakar yi upp qu'est-ce qui s'est passé en fait Khalifa a reproduit moom ak Tanor parce que bi Khalifa Sall nekkee maire y avait des gens du parti Sall qui pensaient que parce que Khalifa Sall est maire mais le patron c'est Tanor Tanor est le patron de Khalifa mais Khalifa a vite fait de marquer que c'est moi le maire de Dakar les gens lui ont imposé des postes nañ ñëw jël direction yi nommé ñu donne ñu des postes de conseil Khalifa Sall a dit non ça se passera comme ça bokk na li tax waa PS yu bëri maire ko si mais quand Barthélémy est devenu maire pour Khalifa Sall aujourd'hui Barthélémy est le maire de politiquement c'est le responsable de Dakar administrativement c'est le responsable de Dakar c'est pas à Khalifa Sall de de wax jaaral nii wala jaar nii. Barthélémy est membre de Taxawu Dakar. Mhm. Euh, membre mhm. euh, du n'importe qui Taxawu est membre de Yewwi euh, communication benn bi bu ko Barthélémy amee mën na dis la ko Yewwi et c'est le cas la communication de Barthélémy qui a mis le feu aux poudres. foofu la lépp tàmbalee. oui mais xam donc xalifa. c'est toujours facile même na ko arrêté. non mbaa mu tempéré ko. non c'est toujours mais xalifa <laughs> euh, Sall mi et Ousmane sonk avec le temps ont développé une une relation. je pense que mi wax na lu leer nee bi muy waxal ñaari lay wax ci coalition bi je parle à deux personnes Khalifa Sall et Ousmane Sonko donc pour moi aujourd'hui et même dans les faits. Barthélemy a développé une affinité, peut-être c'est une histoire de génération ou de truc, une affinité avec son aîné. Barthélemy est très proche de Ousmane Sonko. Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est une petite c'est une histoire bu nga xam ne dafa am diggante Barthélemy ak Ousmane Sonko moo indi situation bi. Maintenant je veux pas que nga def ñu le le procès comme quoi que c'est quelque chose de pensé de ciblé dire que non dañuy xaar bu bés bi non je était tout cela. Nous tous on a été par les par les man la veille ou l'avant-veille. bi ñu defee le forum mondial quand Yewwi a fait son communiqué man je fais partie de ce man j'ai pris la responsabilité de critiquer publiquement le communiqué de Yewwi. waruñu woon def communiqué boobu. le communiqué pour pas bo n'était pas responsable de la part des ministres des gens ministres dans ce gouvernement là. je pense que Yewwi warul def communiqué pour justifier une poignée de main entre d'anciens ministres d'État des maires ya a des moments où il faut faire face à, aux, pour leur expliquer la réalité des choses et que lii c'est le cours normal du fonctionnement la République